mbokki Sénégal mbokki réew mi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 leen ma juum waa ma ñii ma yor siy jeeg gën gu ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi ji li Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a koy ànd ak wasaare làmb euh, di leen jaajëfalaat encore une fois Euh, di nuyu Père Birahim di ko ñaanal gudd fan ak wér euh, di ko di ko di ko gën a ñaanal rek parce que Père moom suñu Père la te gis ngeen ni muy jàppee ci liggéey bi gis ngeen ni nga xamante ne noonu la ñuy àndee mu ñuy gën a ñaax di ñu gën a dooleel di gën a tax ñu ñeme fi ñu jëm Père maa lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw jërëjëf maa ngi lay delloo siyaar bu baax di wax salaamaaleykum wa rahmatullah. Mm-hmm. rabbi israh li sadri wa yassir amri yal na yàlla defal ñu sutura ak mujj rafet. amiin fan bu wér. Hmm. yal yàlla defal ñu tamit li ñuy wax dëppoog seen bëgg-bëgg. Hmm. te yàlla musal ci ndog ak saytaan ak yëpp. amiin di kontaan trop toujours nag ci waxtaan wi rek. comme ni hmm. ñuy waxtaanee maag ngi yow rek. vraiment war kala daal ñu ngi yokkante. yaa ngi may yokk maa ngi lay yokk rek. dëgg la père noonu la. ñaar bu ñu gisee di ànd. foog am kenn ku ne du ma ne man maa yor maa bi. plan bi fi mu ne yow ak ñun ñëpp ak ñi jàpp ci liggéey bi. Mm-hmm. ci la bokk. dëgg la ñi demande ñi posé question yi ci la ñu bokk. Mm-hmm. ñi tontu ci la ñu bokk kon ñoo bokk lépp. dëgg la yàlla yàlla barkeel lépp rek. amiin yaa rabbal di ñi seetaan ñëpp nag. Mm-hmm. jërëjëf. Euh, jërëjëf mbokk yi kon dañuy dem ba Mbour. journée bi nga xamante ni Yaxya Jóob Yékini moo ko fa tëggoon. Euh, ñu demoon ci final léger bi. final léger bi nag doxoon ci diggante Siaka. ak Orange 2 mu nekkoon combat boo xamante ni amoon na technique. Euh, ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ku ci nekk rampe na ba finaalu euh, tey dañuy indi combat boobu su ko defee Père décortiquer combat bi su ko defee ñu gën a wéyal waxtaan bi Père làmb ji moo doxoon ci diggante Siaka ak Orange 2. kii nag Orange 2 moo ne sunu càmmoñ. waaw kay kii mooy Orange 2. Euh, kii Siaka moo ne sunu dajoor waaw léegi su ko defee Père dañuy wéy rek. Mhm. ay ca Père Birahim waaw ñoom ñaar ñii de bon comme xam nga nit ki comme li ma doon wax rek ne boo leen xamul. Mhm. li ñu wane fii rek ci ngay àtte. dëgg la waaw li ñu wane fii rek lay àtte ci li en tant que ci sama xam-xam fi mu toll nag. Mhm. xëy na sama xam xam keneen mën naa ëpp li ma li may wax. dëgg la waaye man ci sama xam-xam laay toll ñoom ñaar yëpp. taxawaay bu mhm. baax na. Eh, ñu ngi léewtoo bëri bëri arène bëri mbapat. waaw eh, man lii ku ko ma a def. damay kor sa teq la. ban ku ku mës a wàcc. ci siyaaka mi. Hmm. nga taw ni sa tànk nii. Hmm. loxoom bi da koy kor ci loos bi bës loos bi mu loxoom bi suli waq wi dama ci gaawoon nag loolu nag action bu gaaw lay doon da ngay a hmm. teq. waaw ba pare suivre. waaw da ngay kor rek suli waq wi. da ngay bës loos bi saa yoo bësee loos bi rek fa mujjee ma fitti. ba lay fitti rek nga suli waq wi nga di loolu nag téqkat a ko man dëgg la waaye amoon na sama benn waaye bu ma de ndeysaan gaañu na ñu ko wax Aliou Ndiaye médaille d'or bu Kaolack yàlla na ko yàlla yërëm xarit mais loolu rek ku ma sa taxaw noonu la moo la man mhm, mhm. bëri boobu nag man sama bëri bëri la mhm. waaw mais loolu am na fi waaye xam ne nag xëy na ñoom seen xalaatuñu loolu ñu dem ay ca sëñ Bass ñu dem waaw ñu ngi jàppante waaw tàqalikoo nañ tàqalikoo waaw xam nga siyaaka xam nga bu ñu demee nag ba ku nekk daan ba final nag mm-hmm. bu ñu demee ba nga xam ne mooy dernier combat mooy final bi kenn ku ne dina bàyyi xel ci sa morom mm-hmm. xam ne léegi nag sama naata nga laay finaalal mm-hmm. waaw ñu ngi dem ñu ngàddanteeg affaire yooyu yëpp wut bunt la waaye ba tey gis nga toujours dama la wax ji li mbëri yi riñaan ba tey gisaguma ko ci man riñaan waaw mooy song pakati Mm-hmm. loolu ngeen di wax paquet mooy riñaan mm-hmm. mm-hmm. dara ñaar tànk rek bëkk ci biir bi sànni mosuma gis benn combat bu ñu analyser fii ma gis kenn song ci song boo xam ne bi dama naan song bii daal dëgg dëgg dëgg dëgg waaw li tax ñuy wax song gisoo ko dañuy jàppante baaraam jàppante baaraam ba ba téyante rek dëgg la ñu dem ay ca ñu dem jàppante nañ ah. tegante nañ bopp. tegante ba waaw fii mhm. fii yëpp dañuy jéem ku nekk ngi ndax sa morom fër ko jaar rek. Mhm. ñu dem. waaw gis nga jël na tànk ba. gis nga léegi nag bi mu ne coppet tànk bi ne. Mhm. gis nga li ma la wax nii. kii. loxo bi def fii la waroon wàcc. taxawaay bi baaxul xam nga ma sew naa la la. bopp du ne ci kaw. déedéet bopp bu nekkee ci kaw rek pare nga pour ñaar. doo gis doo gis ci suuf. bopp bu nekkee. ci kaw doo gis ci suuf. dëgg la léegi xoolal bopp bi xam nga boobu buñ si gën a taxaw ne waa ji daw di tëq yëg ko mhm. léegi tànk ba lay ràccee feel loxo bi dëgg la loxo bee ko mën a lor loxo bi mhm. da koy feel mu génn mhm. ñu dem ay ñu dem voilà gis nga na waaye bi mu rëccee tamit xoolal loxo bi dafa génn dëgg la loxo bi gis nga fi mu génnee baaxul da koy sol ci bokk da koy sol ci biir ah waaw loxo bi fi ne de fii ne de ba tey bopp bi xam nga génn na mais loxo bi dafa war a dugg ci biir loxo bii man la ma la seet fu mu war même bu bii duggee rek baax na. dëgg la bu bii duggee rek bu dee bërekat. bu mhm. bii duggee rek doy na. Mhm. parce que kii mu ngi ci biiram fi ne. Mhm. waaye li koy xañ mu am dara nag mooy mu dugal loxoom bii ci biir. dëgg la ñu dem. ay ca ñu dem. voilà jël na tànk ba xam nga yëkkati tànk ba. demal suuf sa jóg na. waaw demal téye na képp na. voilà téye téye képp na tànk. voilà gis nga képp tànk bi nii nii. gis nga loxo bii warul deñ. loxo orange 2 bi. waaw orange 2 fi mu croché fi ko croché nii ba mu dëgër nii. warul deñ parce que kii bu muusee xam nga def. Hmm. bu noojoor da koy accompagner. moom orange 2. waaw déet waaw bu kii bu bu euh, orange 2 bi. waaw bu euh, fi nekk fii waa ji téye siyaaka bi téye nii. dégg orange 2 fii mu téye nii nii dugal nii. loxo bi loxo bi rëcc. parce que kii bu loxo bi rëcc rek da koy dëbb nooju bu nooju bi rëccee rek bu loxo bi dañee day dem ci ginnaawam la jëm. ay ca ñu dem xool raamal nag gis nga voilà. gis nga waaye xam nga da ko doon nooju dem mu rocc loxo bi mu rocc bàyyi ko moom mu dem mu daal koy sentiré mu sentiré ko war ko waaw parce que da nooju ba dafa téewul loxo bi nag gis nga bi mu koy nooju merci dafa doon téye loxo bi arrière ma tuuti Adama arrière tuuti sëñ Bass arrière voilà voilà ñëwal demal demal mhm. fi mu jële tànk bi avancé tuuti voilà foofu la jëlee loxo bii la voilà gis nga fii nag voilà Mhm. fii fii la bëre bi jëm fii. orange 2 dafa waroon képp loxo bi. képp loxo bi ba mu dëgër loxo siyaaka ba du rëcc. très bien ça. jërëjëf Père yaa ngi door a ñëw. jërëjëf Père loxo bii war a rëcc fi mu ko croché ni ba mu dëgër. Mhm. léegi nag jéem a jéem a éliminer loxo bële. kon mbot bi parce que bii rek a jàpp nii. Mhm. ñoom ñaar teg na boppam fii ci mbàgg mi fii nii. loxo bii ci boppam gis nga loxo bi mu téye nii. waaw bu mu doon téye ba mu dëgër rek warul rëcc. waaye bu ko noojoon day rocc ku bàyyi loxo bi daal koy séntire. dëgg la ñu dem ay ca ñu dem fii la war a la siak gis nga voilà mbot na ko ndooj bi da ko préparé gis nga ñu dem léegi nag siak euh, orange 2 la ñu wër ndomba wër na ndomba ah orange 2 siak wër na ndomba siak moom wër ndomba euh, orange 2 waaw léegi fii nag bu ñu la wëree ah. fii da téyel ba foofu nag ma jàngata leen fi lu rëy uh-huh. primo ni mu téyee ni mu téyee euh, orange 2 baaxul moom siaka waaw Mhm. gis nga dënn bii. Mhm. da ko teg ci digg ginnaaw waaj. dënn bi waaw ràcc tànk yi. Mhm. dënn bi tegu ci ci ginnaaw gi net. doo am air bu fa jaar. teg teg sentir ko ba mu dëgër. téye moo ne tekk foofu mooy yoon ne tekk nag. waaye gis nga daf ko téye ba pare si gi taxaw gis nga équilibre bi baaxul. xam nga téye na ndombali ñii seetaan ñëpp yaakaar na ne jekk na. te it normalement war naa jekk. parce que moo wër ndomba. parce que wër na doom boo jàkkaarloog nit. nga fexe ba mu fexe ba féetale ginnaaw loolu sàggante fee su ko gën a ko rëy mm-hmm. Mm-hmm. li may wax sama boy su dama daan leen sàggante bokk na ci ngay jàkkaarloog ni face à face di léewtoo nga sàggan bu mu féetale ginnaaw. bu mu féetale ginnaaw. loolu moom loolu moom ku ci daane tey ji doo ci daane tey benn yoon di nga ci daan fukki yoon. Ah, waaw waaw. c' est dangereux ci mbër. Mm-hmm. mbër nga mu jàkkaarloo di lekk toog moom. nga sàggan a sàggan ba mu teet sa ginnaaw. loolu danger la. dëgg la. waaw moo tax gis nga fii bi mu waree nii nag. moom mi ci boppam dafa doon tab ràcc tànk yi ba pare ginnaaw gi te ginnaaw digg ginnaawam gi dënn bi. tegu ci digg ginnaaw waa ji fii. mais gisee espace bi mu bàyyi. dëgg la kii daal di taxaw ñaar tànk pare seen ñaar loxo yi. Mm-hmm. parce que léegi ñiy seetaan ñëpp dañu yaakaar ne fi ne daanu na te war naa mën a daanu. waaye bu moom moom mi ñu moom Orange euh, 2 mi ñëw euh, nii. Mm-hmm. soo amee xel tuuti am mën a am sens boole ci sens tamit. Mm-hmm. mën naa rëcc bu rëy parce que kii ni mu ko war a jàpp jàppee ko ni waaw jàppee ko ni. taxawaay bi baaxul. Hmm. ni mu ko téyee baaxul. Hmm. waaw. ay ci ñu dem ñu dem. gis nga. waaw fii gis nga ni mu rombe téye baa baaxul. teewu ko. téye baa baaxul. moo tax orange 2 bi mu bi mu. mu tegal day fi tëdd rëcc. mais bu ko téye woon assuré ko tam. Hmm. maanaam ginnaaw gi tegu ci digg ginnaaw gi nii. seere ko ràcc tànk yi net ni ko net téye ba mu dëgër. du rëcc. parce que da nga doon wut lu neex yàlla jox na la ko téyel. bu ko ñàkk mu ko ci àdduna. loolu moo doon yor. waaye fexe na ba waaw fexe na ba rëcc. ayca ñu dem ñu dem. ñu dem. ah. gis nga. gis nga gis nga xoolal gis nga. Mhm. delluwaatal. delluwaatal. voilà bàyyil mu dem. voilà bàyyil mu dem gis nga daal mu mhm. dem. voilà gis nga voilà war ndomba bàyyi voilà gis nga rëdd bi gis nga mhm. fitteel ci ko bi day fitteel ci ko parce que bi mu waree dafa téyewul téye bu baax. téye bi téye bi fi ci téye bi rek la daanoo. Siaka fi mu wëree woon doom ba orange de. waaw orange de foofu lu ko delloo si waat. voilà li tax mu delloo si waat ko. Hmm. dafa miimee gauche ak jaar droit côté bi côté a la génnee. Hmm. ba pate ko waaye dafa fekk na euh, Siaka mi ni mu ko téye. Ah. dafa fekk téye baa baaxul. dëgg la. xanaa xam nga téye wër ndomba dañ koy jàng téye nu ñuy daw dañ koy jàng. waaw hmm. waaw. dëgg la am na ci noo xam ne buñ tegoon ci tapis dama lay wax ni ñuy téye ngemb ni ñuy téye wër ndomba am na ci noo xam ne boo ko defee suma ma jàppee si doo ci mukk mais am na ci noo xam ne boo ko def moo neexee rëcc loolu lépp bis na ma sa toog yàlla may gudd fan a fekk mhm. naa leen ko ku ñu war a jàll la a def mhm. kenn doo mën a rëcc mais am na ci noo xam ne bu ko sa loxo defee waaw mën ngaa rëcc dëgg la waaw moo tax gis nga fii bëri na bëri bu rëy mais dafa juum mhm. waaw parce bi mu tata tata ba waa ji nooju mu nocci loxoom loolu xam-xam la waa ji dëbb la nooju nga accompagné ko a ba dem nga ne ko sat yi da naa tekk lu ko waaw ah, boo ne woon tekk seere rek taf maanaam sa ginnaaw sa dënn hmm. taf ci digg ginnaaw gi ràcc say tànk rek téye mu dëgër foofu moo doon yoon wi su ko defoon xoolal waa ji day kuus kuus gooy mu ne tekk rek xam na lu neex lu la neex la lu wut am na ko ba pare hmm. li neex kay boo xamee fexe nga ba waa ji waa ëpp la doole surtout ëpp la doole hmm. fexe nga wër ko ndomba téye kay ko lu neex la dëgg la loolu la xale yi di wax yi léegi waaw ku fi loolu ba kër mètre zéro zéro ba mètre si bi waaj a jeex. Mhm. nga am penalty. Mhm. kooku war ngaa xool fi nga koy doon. maa la ko wax am de. waaw loola tax mooy rëcc na dafa rëcc nag. waaw mhm. ah, waaye nag it que euh, orange di yoon ci biir bëri. daan na def na bëri bu la bëri nag ba daan waaye moom it na delluwaat xalaat xam ne lii ma def nii naa waaye juum naa ci biir bëri bi. maanaam ñaan bu dëggu moo ko ci génn. waaw dafa juum rek. waaw ñaan ba tey ñaan ba ne. la dimbali ci ne ba tey. ñaan mën na ko lu ne mën na ko ci génne daal am sens daal ñëw na wërsëg voilà wërsëg bu wërsëg daal feeñ wërsëg ci bëri moo tax nee naa la gis nga bëri léeg-léeg nga daan ñëpp kontaan mhm. nga dem ba sa kër bu ñëpp ñibbee jullit ñaar rakk mhm. sant sa borom xam ne yàlla da laa suturaal tey. Mhm, ne daanu woon nga. wallaahi waaye nii nii nag xale yi léegi nag da ngay daanu da ngay def benn njuumte. Ah. yàlla suturaal la nga daan. wooy maa mën a bëre. laa ilaaha illallaah man damaa mën a bëre. lii sax du sama bëre bëreegu ma. Ah. bëreegu ma sax. wallaahi waaye li ma war a def. Ah. toog naa benn waaye plateau mu def ko. dóor waajam daal ma ne ko kii yéen a soo ma ne ko déet da cee feeñ ja. Mm. waaye bon daje waate dañ ko dóor mu daanu. Hmm. ah waaw mën naa wax turam ni benn mbër boo xam ne maa toog ci plateau. Ah. ma ne kii li ma ko bëggoon def sax dafa mooy. ma ne ko déet da cee feeñ daan nga rek. Hmm. santal yàlla ndam nga doon wut am nga ndam. Hmm. waaye bul fëkk mukk def li ba pare dafa waaye beneen li ma ko bëggoon def. waaye bu ci dajawaatee dañ ko dóor mu daanu. bi mu dajawaatee même mbër moom. déedéet beneen mbër la bëreet maa ngi ah, toog dañ ko dóor mu daanu. ndeysaan moo tax làmb ah, moo tax gis nga àddina. làmb rek la tudd. waaw deel làmb la et puis deel am xol bu rafet ci ñëpp. boo daanee santal yàlla. léeg nga def juum nag daan waaye léeg-léeg ñu jekku la nga daan waaye boo ñëwee santal yàlla xam ne dangaa daan nga waaye tey juum naa juum bu rëy. dëgg la loolu dafa am ci làmb. Mm-hmm. nga naa fi la sant sa borom te ah te yàlla dina ma dimbali. Mm-hmm. waaw waaye nag ñoom dañ koy def ndam nag dañ naan boo loolu laa mëne man kay nangam nangam dafa def sa am sans sa waaye kooku waaye te beneen ñoom ñu la ko defee lu gën a soof lañ lay daane ci loolu. am na solo. mais nag tubaarkàlla ñoom ñaar ñaar xale yu baax la. Mm-hmm. kii la ñu ah. li ma gis ñu bëree ko fii ñoom ñépp bëri bu yëngu la ñu bëri bëri bu mm-hmm. yëngu mm-hmm. parce que bëri bi yëngu la am na action action yi neex na mm-hmm. action ku ne def nga sa man dëgg la ñaar nag bu ñu dajee foog kenn am ku juum waaw si yaaka bi dafa juum parce que de action bi yëpp rafetoon na noo bi mu dem mu tatafu digri tatafu dafa doon tekk mu teeyoon rek gis bunt bi dëgg la waaw am na solo li mu fexe ba rëcc tamit. orange li mm-hmm. mu rëcc ci bëre bi tam am la. moom orange de. Mm-hmm. la dëgg euh, am na solo mbokk yi euh, Père Birahim la woon Baye Djily ñu leen di jaajëfal bu mm-hmm. baax a baax a baax. loolu lañ leen indiloon ci jàngat làmb tey doxoon ci diggante Siaka ak ki nga xamante ni mooy Orange 2 gis ngeen Orange 2 ni mu daanee Siaka dinañ leen indilaat beneen combat. mais mbokk yi bu leen fàtte. combat bu ngeen bëgg rek ñu waxtaanee ko. commentaire leen ko bind ko ci suuf incha allah dinañ leen ko indil fii. père décortiquer ko ñu ànd ci combat bi waxtaanee ko comme ni ngeen ko bëggee père ma lay jaajëfalaat bu baax a baax baax. a jërëjëf. yàlla na sant yàlla rek di alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. eh, di ñaan ci borom bi yàlla bu mu suñu mujj daje rek. amiin yaa yàlla yokk ñu yokk sutura yokk sit bi. Mm-hmm. Eh, yàlla def ci teraanga bu baax a baax. amiin yaa rabbal ñi fi nekk yëpp yàlla fi jàmm ak sutura. amiin yaa rabbal ci ay. musal ci lépp rek. amiin war kàlla sant yàlla baax a baax. ah loolu daal lañ ci xam suñu xam-xam foofu la ci toll. Mm-hmm. ah xëy na ñeneen ñi seetaan dañ ci génne leneen loo xam ne ñun am njàngale doon ci. waaw mm-hmm, mm-hmm. ah, sant yàlla. jërëjëf jërëjëf a mbokk yi noonu lañ leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf. mbokki Sénégal mbokki réew mi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 na rëy ma juum waa na saay maa baaxi jeeg ñii ma